Thank you. problème mooy ah lu lu ma bàq bu ma am fii sama xeeb dafa leer nañ waaye bu ma ko sottee si tama gi du leer. ayoo di ma. <laughs> waaw du ma jox lu ma bëgg da nga xel mee war a liggéey transféré ko yaram bi mais yaram bi day bañ waaye xanaa ma improviser rek su ma demee lu ma tëgg ñu fecc waaw. ah ah ah ma accompagné ko ah, ah waaw mu jeex comprendre si lu may tëgg dara nañu dégg ay ah ah, ah rek waaw lu nu fecc baax na kenn du wax rek ñeenti téeméer ak juróom fukk la na fay. Kan? yalaka ah malam malam mali doo xamee mal day wane woon eh yow ñàkk mu jëm xanaa da nga gumba lan yow ñàkk yow karam nga tase woon fii nii na doxaan ma man ma nangu eh man yow laa eh doxaan doxaanu ma doxaan nana normal bukan kira aku da amu kadem la doxaan nga deh feneen deh man doxaan demal demal yow ñàkk yow mu doxaan man way du yow mu waxu boobu de boobu génnewu la ci de baaxu na eh déglu li ma lay wax bu baax man doxaanuma tey doxaanuma lii yoon doxaanuma la xëy boo bëggee dama sa yoon dama ñànku man dem ma sama yoon ma ne du ma dem sama yoon tey du ma dem sama yoon ëllëg waaw waaw léegi léegi yow la yow yow waaw xaaral rek kii eh. kii day leew leew la moom yaa doxaan booy wala doxaanoo booy man ma lé léegi nee naa ko du yow moom mu fekk man fële man heure la woon man heure la woon di di soori si guddi Tawa. Tawa. <laughs> yow noo tudd. man ma tudd Marie. ah Marie. Ah, foo dëkk. man mu dëkk ci bopp koñu bii rek. ah koñ bi ci ci génn koñ bi fii fii. koñu bii dafa amu génn. waaw bo bopp bi génn gi. ayoo di ma. Fala. dama mil ci yow mil. ma ni bu njaago boo bëggee miiri miiri mi ngi nga demu ci miiri ba. Hmm. ko eh xaaral eh dama dama laa nof. yow man nga nga nobu njaago. waaw ah mais. dama damaa jóge entraînement rek. yow nga jóge entraînement nga melu nii. waaw. boo songoo nga rafet. lu way yow way yéen waaw. Oh. d' d'accord nga. Ah, waaw ñëw. ma moom la waaw. heure boobu ngay yéen ñu ay xolam ñànku am nit mbëggeel mën naa duggee fu ne yéen ñaar mën ngeen a def. waaw léegi man man la ah hmm. maa doxal waaw maa ko doxal. waaw léegi bàyyi naa. waaw yow mu bàyyi yow du bàyyi boobu. Eh, bàyyi yow du bàyyi boobu eh, eh, laa yow du bàyyi boobu. ma yow du bàyyi boobu laa 哎，哪里有？乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦。哎，哎呦我的妈！ <laughs> jamaani wa wa wakare wa wakare wakare xanaa jëndul bee xanaa boo jëm sumu jaamur yi del jënd bee ayoo di ma ne ko gene du kii du gene ne ko lay sim de sim sim waaru kii kii kii kii kii kii dama sanal moom moom moom nee man maa daje ak moom fi di ka kan? doxaan Mm, da nga woon gisuma ko woon kii léegi ñu dajante mu ne ma ñàkk séeli ma ne ko dama koy bañ mu ne ma yow laa doxaanoon waxoon man kii bu ma kere ma koy doxaan moo gisoon kanamam gii kanamam gii gii gi moo ko gisoon dama ko doxaan. Eh, doy na. Eh. explique. Hmm. man ma mani Ndiago. Hmm. mu tasee ko man fee barki dem. wuy ma wuy ma waxal rek te bu attaqué. ah mani mu wax ko bu baax la mani mu ne mu wax nanki. Hmm. mani mu tasee ko moom mu bari ki dem ci guddi. mu doxaanu ma. fajar gi mu tasee ko man si biti. Eh, déglul amuloo wax. liquide bi ma ne ko ñànku séeri mu ne ma ma ni damay bañu loolu mm. ah mm. ma ne ma ko ma topp ko ma bëgg ko loolu moo tax ma takk ko mu dugg ci biir kër gi yow da nga da nga nopp kii ma ne mu nopp ko ah yow moom doy nga waar di mm. léegi nag xam nga lan la wa ah? ah, baax na léegi xam nga lan yow njaago gis nga nit nit nit xam nga nit nit am wala fii loolu am ñëpp nit lan dañuy juddu tay sax dee tay moom mun na laa doxaan démb xëy tey nee la baax naa ça dépend de moom. nee na bàyyi na waaw ah, nee na mani njaago boobu génnul ko ci de. Mm. bi dugali njaago boobu génnul si njaago. léegi xam nga nawal ki nawal ki. Eh, am ay jabar man sama diine sama yituma ma tax am naa ñeent ak takkoo moom mii bu ne moom papa yow mii la bëgg pour ngeen sëy man damay lànk ndax du ma jël sa kanam gi di ko boole kanam gi. bu ngeen amee doon ci noppi naa. ma nga noppi maa ngi bu ko dugali si njaago génnewu ko ci njaago. Ah, ah waaw yow mu daxaan man yow mu takku njaago mu amul njaago ñetti doomi mu doog ko fase ayow di ma eh xam nga lan la yéen xeexu njaago du jeex ngeen waxoon waaye waxoon leen mbëggeelu njaago du jeex ñu ñett ñëpp la ñu boole léegi léegi mbëggeelu njaago du jeex wax wax wax mu dem ñaan dem man kay dum wax dama la mënoon def naa effort yo mënoon yëpp def naa ko léegi xam nga lan la accepter mbëggeel bi eh, eh, da ngay nangu de da ngay nangul nangul pour le moment wa oh, léegi ma demoo ba a suba. nee nga dem ba na ba gannaaw suba. ban heure. fajar fajaru amu na heure de fajaru amu a 9h amu na 10h. 10h ngay ñëw. 10h 9h day ndékk. Hmm. waaw mu joxuma 100 francs mu dem sama patron bi. jox ko 100 francs. non non ah. maa ngi dem. moom fo fo foo na ma de. ko kii foo na mi sax daa métti. faaw foo de la yor kii. kii foo na ma de. demal rek xam nga xam nga foo na ma eh, eh, rek yow loo loo la jox jël loolu la jox jël may euh, euh, ma may ma mbuub dukkule la dukkule pas dukkule jógal jógal dukkule dukkule nelaw di dama jeex na hmm? ma ne cool jeex na nga jug dem dukkule dukkule pas dukkule la xaw ma nu mu tudd nu jug dem lu nekk moo koy fekk yow mi amu fu ma la xàmme kan yow mosoo see documentaire amu fu ma la fekk yéen di la seraan ayoo di ma <laughs> kan moo gisee documentaire. eh yow kii kii kii da nga kaa jaawale golo gi. non documentaire bi ma lay wax nii da ngaa leew de. Eh, kii kii la la jaawale golo gi documentaire nga naan golo. eh eh man gis nga du ko de man nekkuma fii ci benn benn la ak yow xam nga lan la sama kër mën nga ñëw. mais sa yére bi bëggatuma kaari sauvage sama kër gi génn. booy xas sa yére na fekk nga jàkk te wuñu wuñuwul bi rax la ni xanaa yow ko faa ah, doo ko lee lus naa la nag de lu mu la def ma lay wax rek sama papa café moo ko leetaanu ma ko kii nekk sama morom booy wax na ko di jaboot de eh, ma lay eh, wax rek eh demal nga mel kii rendre hommage Superman nii jógal fii rek yow daw nga bay bëgg a dee. seytaane nga rek. ni ma doon kan eh eh loo wax noonu. sa yàlla saaga yow la saaga kii yef na la de. amiin ñu bokk. yow yow yow yaa ngi gis xale yu jigéen ñoom kii miis ñoom ku mag wala sekk ñoom ñëpp a ngi fi. ah di wax ka moo leen ne takk doo dem jéem a doxaan si ñooñu takk li indi li si kër Mor Sobar kanam gu rafet. folme bi folme bi laa gisoon bi ma koy gis li ma koy doxaan ah, guddi la woon guddi. léegi ku ñaaw kii loo koy doy. ah kii xa kii loo koy doy waaw ko koy damaa amul benn fexe rek. da xam nga lan la. imposer sa bopp. ñànk yu góor nga. nga dem doxaan si xale yi jigéen ñi rafet ñi te bàyyi jigéen ñu ñaaw ñi. yow tax lii sa sama yaay ku waxoo conseillé yoo ko woon di. ayoo di ma. <laughs> waxoo bi bi bi ngay waxoo ko woon mu xool góor yi rafet. c'est-à-dire ah man ak yow ak femme ñun ñëpp nu da mel ñaaw iya. ba joxalel mako fofu ben mbuusi bisap <laughs> <laughs>